fu ab murit nekk yi yëgoon nga ko ba ñu bari ci murit yi tàbbal ci seen loxo liggéey boobee nag daayira Miftaahul Anwaar wa Sahaada daf caa taxawe woon taxawaay bu ràññeeku bu ama am solo tey lu mënta ñàkk ca liggéey ba loola nag biñ ci demee ba yegsi ci fii moo waral sëñ bi ñëw fekkee si ndaje mi indi leen ak cant cantu Cheikh Mahamadul Muntaxa ak ay ngërëmam seeral ko itam mbooleem mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yëpp di wax ne bañ tàmbulee liggéey ba ñoom fekkoon na leen ñu def ab daayira di liggéeyal sañ Tuubaa ci dëkk bi loolaa nu yóbbee nu xam seen taxawaay ba tax na bi ñu tàmbulee liggéey bi ñu ne lii am na ci wàll woo xam ne seen wàll la ñoom muy li jëm ci wàllu assainissement bi muy pose tiwo yi di wax ne ànd nañoo ñoom ci ñetti junniy mètre ak juróomi téeméer yoo xam ne yëpp ñoom ñoo ko posé ci diggante tiwo yi 630 ak 400 tiwo 400 loo xam ne lépp amul guddi amul bëccëg. amul naaj na amul suba na bi ñu tabaskee ba bis ba delsi lañ lancé woon liggéey bi dem nañ ci ba ci ba màggal daanaka positivo yi di soog a di soog a pare euh, sëriñ bi nee na mi ngi leen seereel loolu leen ci sant di leen ci gërëm di leen wax ne sëñ Tuubaa mi ngeen di liggéeyal gis na ko gis na ci seen taxawaay te itam seenu pay dara radu ci manqué incha allahu taala ndax liggéey bu sëñ Tuubaa nangu la bu amal njëriñ dëkk bi la bu amal njëriñ bindee fi yàlla yi te taxaw ngeen ci na ci war a taxawee di wax ne muy tuyau yooyu nga xam ne dañ ko doon posé ak risque yam àndaloon yëpp yamul ci loolu waaye fépp foo xam ne gas nañ ko te ndox mi mu ngi ci suuf tuyau yu ndox yi nga xam ne moo yor wàllu ndox mi nga xam ne moom ci la ñuy nga liggéey néewaane fu ñu laal di fa liggéey te def fa 24 heures te amut fiit bu fa am wala laaluñ fa tuyau ndox ndax liggéeyu gas moo mel noonu di wax ne fu ñu fi mas a amee jafe-jafe bu mel noonu itam lu ndox ma bari bari lu mu néew néew lañ ca war a def lépp ñoom ñooy taxaw def ko lu dul na ñun lañ cay am mooy jënd matériel ba ca war a dem ñu defe ko ci anam gëm gën a rafete loolu itam ñu ngi koy seereel mbooleem ñu ne bokk ci daayira bi waaye di ko seereel mbooleem ñu ne ci seen ginnaaw ak seeni soxna ak murit yëpp ak njaboot sëñ Tuubaa gi nekk fu mën a doon ci àdduna ñu leen di seereel ne taxawaay boobu amoon nañ ko ci biir liggéey bi mu yéen nga xam ne yéen ay problème yi ne ci dëkk bi di ko fi liggéeyal ànd ko ak noonu waa Touba ca kanam muy taw tawféex geneen ndax dëkk bi dafa mësa bëgg lu dul moom yàlla yonente bi bu ñu amee genn bëgg guñ xam ci sëñ Touba Touba rek la woon bi mu ñëwee sanc ko juróom-ñaari la fi am ci def lihtikaaf ci jàkkee Daaru Xuddus ji ci xam ne ci barab bi ñu nekk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam feeñu ko ak gaayam ya mu jaayante ak moom lam jaayante ak moom ba tax ma dem ci géej gi waaye yàlla miy dogal dogal natt ko ci dëkk bi ba mu demee ba natt bi ba ñëw suñ borom da koo xamal ne suuf si aaral nañ la ko ba am lu aw yiw la fekk kon da ngay génn dëkk bi looloo ko yóbbu woon jolof mu dem mbàkk beer yi sañc fa ba bisu dogal ba ak si mu génn dem ba ni ñu ko fi ñibbisi ba 1927 bi mu jógee njëriñ ñibbisiwaat fi tegaatu tànkam ci dëkk bi bi ñu ko jëlee ci yeen jolof di ko yóbbu njëriñ bi mu ñëwee ba tolloog dëkk bi suñ borom da ko sa bët bu dalee képp ci dëkk bi liggéey bi yàqu daa moo gëmmu teggi dëkk bi sëñatu koo xool sa ak bëtam kon nag nun yàlla defal taw feexi nun nu nu dëkke dëkk bi dëkkal ko fi suñ boobam defal nu taw feexi ndimbal ban mën a am lu ñu ko ci xëyal nañ sant yàlla di góorgóorlu ci ndax kat moom ñemewut boog dafa am pay te dëkk bii waxoon na ne jamono ngi ñëw joo xam ne day addina sépp dana tàkk ba doon genn daay kenn du ci mucc ku dul ku ñëw ci sama pàkk bi di loolu nag yaakaar naa fan yi képp gis nañ ci misaal ci ci saa ci yaakaar naa dem fan yi ñu weesu Sénégal gépp doon nañ fi dégg ay tàkk-tàkk ba mu des te loolu waxoon na ko ci njeewal nee na woon dana dem ba ab xiif sonal nit ñi la jël leen kenn du ca mucc ku dul ku ñëw ci sama loolu it alhamdulilah bi alamin noonu waaye Tuubaa Tuubaa ca kanam ñu ngi gën a sant yàlla kon pàkk ngi boo xam ne pàkku muccukaay ngi pàkku rawukaay ngi nii pàkkum ndimbale ngi nii pàkku yërmande ngi kon képp ku yàlla defal tawfeex nga dëkk ci dëkk bi waaw ngaa xam li la yàlla defal ñu ngi leen di sant di leen gërëm ndax li ñu fi wax moom kenn mënut a wax lu ko raw sëñ laat mii daanaka li ma doon junj lépp da koo leeral moo tax daanaka jenn wax dong la li ma doon li ma waxoon daal mooy junj lii sëñ laat wax sëñ laat nag wax na lépp ci ma doon wax ni fii lañ ko war a defee Daaru Xuddoos leeral na lépp ndax wax na li ko waral kon daanaka lu sant leen gërëm leen ci turu sëñ Abdou mii sëñ Cheikh yabal ak ci turu sëñ Ahmadou Mokhtar mi nga xam ne moo jiite Daaru Xuddoos loolu rek lay doon di leen ñaan nag yéen ñi nga xam ne yéen ay problème yi nga xam ne fii ngeen def mooy seen so siège social ngeen ngeen dé lii ñu leen wax ngeen dégg ko bu baax Touba mooy Touba mooy dëkk bi gënal sëñ bi loolu sëñ laa leeral na rax ci dolli itam li mu wax ci Matlabul ni lu nit gàtt gàtt ëllëwa bu ko jàngee dina ko xam dara dara lu ci lu ci manqué amut ci dëkk bi nan ko jàppee noonu nag ndax kat ah, waccal ilaahi maskani tuubaa abad misla smiha bi xëy xëyri man abad loolu lu nit gàtt gàtt alluwa xam ko defal tuubaa mu mel ni turandoom wa ci àjjana ak garab la gu nekk ci àjjana goo xam ne lépp a nga ci defal tuubaa nag mu mel ni yaakaar naa lu nit gàtt gàtt bu xel nag xam na ne tuubaa mel na pour gi sëñu fi dara ndax da ab kër la kër goo xam ne nag sëñ Muntaxa ko yër fi mu loolu da na a a xamal bu baax a baax ba lépp loo xam ne nekk gis ngeen ko ci dëkk bi muy lu wër ta am ni ngeen ci diisoo ak ñi ngeen ci war a diisoo tey bu àggee ci sëñ bi lu mu mën a doon lu dul noonu dañ ko saafara loolu daal dong laa ci dolli di leen sant di leen gërëm. taaliba bu nekk li ngay ñaan mooy euh, lu mel ne daayira wala kuréel jaare ci sa loxo ba dugg ci Touba ci kanam ba liggéey liggéey bu rëy nii loolu képp ku nekk ci ak kuréel ku nekk da ngay da ñaan yàlla am loolu te comme que yàlla def nañ. Euh, daayira bii nii ci suñ loxo la jaare woon ba dugg ci Touba Ca Kanam kon dañ koy sante suñ Touba loolu rek lañu amoon ci kàddu xam naa di sant mbooleem waa Touba Ca Kanam ñëpp a ngi ni toog ñoom sëñ Modou Boussa ba mii nekk sama wet ku nekk xàmme ne sëñ Ibou Laay sëñ Modou Dieng ñoom ñii ñëpp di ay jàmbaar yoo xamante ne bi waa daayira bi xàmmee nañ leen ci liggéey bi sëñ Gan Thiam ma nga nële toog ca ginnaaw moom daa mel ne dafa ñëw nëbbut mooy ingénieur bi nga xamante ne bi moo yore woon liggéey bi Colombie yi xam nañ ko baax a baax kon daal ak ñoom sëñ Balla Mbooj ak sëñ Moutala Abdou Fatah ñëpp daal bàyyiwuñ kenn sëñ Aboo Njaay ak bàyyiwuñ kenn daal bu ñu limee dañuy juum ñi ngi sant waa daayira bi nag bu baax a baax ci ànd gi nga xam ne ànd nañ ko ñun comme ni ko sëñ Cheikh du waxee rek dañoo fas yéene ànd ba ba ba jóge fi rek ndax liggéey bi dafa liy ñëw moo ëpp li nga xamante ne bi moo weesu liggéey bii nag bu agsee fii tey suñu digg ak Touba ca kanam gi gannaaw yàlla ak sëñ Thierno Ndiaye moo jëkk wax ak Mor Thiam mais moo ñu booleeg waa Touba Ca Kanam ba tax ñu am ci atu bi ñu am di xam ne nun de ay ndaw lañ bu ma ci boolee sama bopp nag gunge gu ma leen gunge moo tax ma nun ay ndaw lañ yoo xam ne ni ko sëñ laat moom Seex si Abibu Mbàkke ba mu xam bu di waxee léegi nii nun xam nañ li nekk ci dëkk bi lu mu doon xaw a jot nañ ko baxte lépp pour loo xam na xam na ne lu ñaaw la wala lu aay la lu ñu aay du ko def ci dëkk bokk ci kaw suuf rawet na yéen ndaw ñi nag di sant bu baax a baax a baax a baax a baax a baax ci mbooleem ñi fi teew ci góor ak jigéen xam ne fi mat na sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk dal desi ci di soññ ndaw yi di leen xamal ne yéen ko ne yéen it na nga takkuwaat te waaj siyaare bi ndax mi ngi bëgg a ñëw lii ab lancement la si bu ndaw boo xam ne bu accès moom it dana toll noonu ma la xamee loolu di sant bu baax di gërëm baax. li tax ndaje mi ku jiitu mooy daaira Miftah Anwar wa Shahada eh, muy boo xamante ne Serigne Saliou Mbacké moo ñu tudde woon Miftahu Anwar wa Shahada nenu na ngeen ma jàppale ci ndox mi tuuru ci biir dëkk bi muy mbooleem plombier yi nga xamante ne ñoo aju. ci bii ñoo ne ci biir Touba ak mbakke ñoo àndandoo ko àndandoo wenn say Serigne Abdoulaye Diagne mii nekk seen président man mii ma nekk seen porte parole mu mel ne eh, eh, di dox ba Touba ci kanam ñëw ànd ak ñun ci liggéey bi nga xamante ne moom la ñuy liggéey muy adduction d'eau yi ak assainissement bi nga xamante ne moom lañ doon def ci biir dëkk bi muy fépp foo xamante ne Touba ci kanam maye na fa ndox rek. daayira plombier bii di Miftah Anwar wa Shahada ñoo dem def adduction d'eau ba euh, ci gratuite bu dee assainissement bi tam fu mu mën a doon muy euh, tookor biñ ko tàmbalee ba ni mu arrivé fii si ci canal bi ci Daaru Xuddoos euh, daayira Miftah Anwar wa Shahada ñoo ñoo ko ànd def ko wëlbatikooti daarul guyu sew ba daarul ma naan ba pencu mbay wadd assainissement bi foofu lañ ko jëlewaat indiwaat ko ba ci caniveau bi nga xamante ne foofu lañ ko dugalaat bis bis bii nag tey jii sëriñ Abibu mi nga xamante ne moo jiite Touba ci kanam moo waxoon sëriñ Abdou mii di président Meftahu Anwar wa Shahada di daayira plombier yi ne ko dama bëgg samedi ji tey ma jàpp ko ma waaxu ba ñëw ak mbooloo mi doon liggéeyal sëriñ Touba moom mi nekk jëwriñi sëriñ Touba ji mu ànd ak ñun jëlee kàddu cant goo xamante ne mi ngi ko jëlee ci Cheikh Mountakha Seydal Basir mi fi toog jataayu sëriñ Touba bi te yàlla na yàgg te wér mu kàdduy cant yooye nag la ëmb ak canti boppam ñëw nag dajale mbooleem plombier yi nga xamante ne ñoo aj ci dëkk bi di miftaahu anwaar wa shahada doon def bis bu muy santantewaat ak ñoom gën a saafontewaat ak ñoom muy bisub tey bii di samedi ji nu jàppoon tey jii ngir saafonte ak Touba ci kanam di ñëw di def cant goo xamante ne ëmb na ko jëlewaat jëmesiwaat ko fii ci daaira miftaahu anwaar wa shahada muy ànd koog ñii mu ko ànd lan di Touba ci kanam liggéey bi nga xamante ne noonu la àndal nag mu liggéey bi muy adduction d'eau bi ma la waxoon di assainissement bi liggéey yooyu yëpp nga xam dafa aju woon ci Touba ci kanam moom la ñëw andiwaat nag fii donc muy bisub tay bi bisub tay bii nag nu am mbégte mu rëy ndax sëti sëriñ Touba yi fi toog tey ak euh, leeral yi fi am doy na taalibe bi jëm koo def lool kon noo ngi sant bu baax ci bisub tay bi di ci am mbégte lool nag di di di ci gën a am kontaante di gën a mën a gën a avancé waat ci Touba ci liggéeyal ko ndax ay ndaw lañ yoo xamante ne ay borom yu lañ yu seen yu teg seen métier ci yoon kayit dañu war a am ñu am ko yëpp wëlbatiku ànd ak Touba ci kanam ànd kooku taalube ci liggéey sëñ Touba. ñu koy fàttaliku sàng di leen ñaanal biñ dajee jat daje bi def nañ fukki lixlaas ak benn ñaan ko mbooloo mi ñu ñaanal leen ko muy ab du jaxate ak Cheikhouna la nga xamante ne ñu nekkan ñu jàmbaare ñoo xamante ne dañoo xamante ne liggéeyal Sëñ Tuubaa rek mooy li am solo ñuy ay ndaw waaye bi ñu gisee ñuy liggéeyal Sëñ tubaa ñu xam ne liggéeyal ko rek am njëriñ dañoo ñëw soobu ci biir liggéey bi di ko di ko liggéeyal ba bis boobee nga xamante ne suñ borom moo namoon seenu wàcc ci ruu gi foofee lay wàccee ñu wàcc fa. waaye ba léegi mbooloo mi fu ñu dajee ñu ngi fàttaliku ñooñu noonu di leen ñaanal engagement yi ñu amoon def ko ak Touba ci kanam dafa mel ne Touba ci kanam dañoo fekk ñu def engagement yi ak Serigne Saliou mi nga xamante ne doonoo waxoon ne na ngeen ma jàppale ci ndox mi tuuru ci dëkk bi. waaye an année ba mu ko defee dafa jël juróomi barigoy suukar jox ko Abdou mi nga xam ne mooy bi ne ko jox ko ndongo yi. daa du ne bu ngeen ma jàppalee ci ndox mi tuuru ci dëkk bi de na leen leer ne fu ngeen nekk maa ngi ànd ak yéen mbooloo mi nag loole Serigne saali waxoon moo fees seeni xol ba fu fépp fu leen sëriñ bi ne liggéey bi rek ñoom takku nañ. ndax ñii kët bu màggal jubee dañuy jël ci seen compte gi nga xamante ne mooy addi yi ñuy jaayante di ko joxe dañ ciy jël génne ci am koom dugg ci biir dëkk bi coow bu yàqu ci mbedd yi dañ koy defar bu dee collier la dañ koy defar ak nu mu mën de dañ koy defar ba mu tegu ci yoon waajale ko màggaluk Serigne Touba yi nga xamante ne Serigne Touba daa woote woon na nañ ma santale suñu borom ci 18 safar jooji liñ ciy saafara liñ ci wane de mooy ñun ñi nga xamante ne ci terrain bi lañ nekk am nañ ci gis bu wér ceeng xam nañ ne gis nañ bu màggal jotee mu am ay côté yoo xam ne day manqué ndox bari waane lu koy sabab loo xam ne am na côté yoo xam ne lay indi manqué ndox ga mooy tiwo yañ am ancien tiwo yu njëkk yi la bokkul ci euh, ci kii bi bu ko defee nag léegi day feebal am na ay tiwo yeneen yu am doole yoo xamante ne traversé nañ leen ñu ngi leen koy représenté ba tàyyi suñ ko maayee diggante yooyu dana dana Euh, euh, faiblesse bi. 30 forage day naam doy na waaye Serigne tubaa kenn dëgg dul limal euh, ëttam bi na yem na ndax fi mu ne nii corniche bii nu yem fi la Touba yemoon ay jamono waaye fi mu ne nii tey jii ñu la bëggoon ne fii la Touba yem day naqaree xam population bi day dolliku dëkk bi day dolliku kon lépp loo xamante ne rek daa jëm si ci biir Touba muy ndox muy lu mën a doon muy assainissement nay day gën di dolliku rek ndax population bi day gën di dolliku dëkk bi di gën a yaatu.